sen collaborateur yi ngeen andal di nuyu sama collègue député yi monsieur le ministre sama mbokk mi fi wàccee damaa defe ne dëkkul Sénégal wala ban Sénégal lay wax Sénégal goo xam ne fi mbay mi toll fi agriculture toll amul ci Afrique Sénégal goo xam ne ci ceeb bi ñuy wax muy waalo président de la République jël koppar yu doy irriguer ay terre jox ko ay nit di leen financer di leen accompagner bi ba ci bënd mi bi mu ñëwé Sénégal ci bopam fep fu nit nekk am problème ci mbay recensé nañ la war la jàppale ci plan sec bi dama défé né du Sénégal googu lañu wax monsieur le ministre monsieur le président de la république di gis xalé 12 ans bu dugg ci bato bu kenn le président de la république nit ñi ñoo xol leneen wayé fi moyens yi mi fi retour à la terre du slogan réalité la parce que président daf ko wax ba paré accompagner ko ak ay outils accompagner ko ak ay milliards ba pare nag jox ko ñoo xam ne administration bu xarañ nañu bàyyi politique te wax pour la Sénégal te wax pour ñëpp monsieur le ministre maa ngi sant la président de la république maa ngi koy sant ci benn côté dag da doo dag doo ji bu ñëwee ndox mi ñuy wax dafay jeex emploi des jeunes mbay mi mën na ko mën na ko andi dëgg la ku gis di trente mille jeunes yi ñu accompagner dix mille jeunes yi nga xam ne DER da ko enrôler wax dëgg yàlla am nañu wax leneen monsieur le ministre ferme yi nga xamné fermes... ferme yi nga xamné en février Sénégal dana ko tek loxom ñing ci ciy le président de la République ñing ngi président de la République ci ferme villageoise yi ñu koy sant ci autosuffisance ci oignon ci pomme de terre diko ko ci financement yi mais nak monsieur le ministre nit ñi da nga leena war di wax li président di def nañu communiquer li président de la République def ci Sénégal ci agriculture musu fi am kon nañ ko wax ñi nga xamné chaque jour dañuy taxaw fi

Covid 19 bi ñu jall ñu doon wax baykat yi duñu duñu du ñu du góob ñu doon wax gerte du am ñi bëggoon dara du am yàlla njuuy na leen tey économie bi agriculture moo koy yëkkati te loolu dañuy féliciter le président de la république di la féliciter yow mi nga xam ne yaa bokk yaa nekk ci bopp ministère bi di féliciter ministère des finances di féliciter nag jeunes yi nga xam ne gëm nañ seen réew ba toog fii jàpp ci agriculture pour développer ce pays je vous remercie monsieur le président